di ñëwaat ak yéen ci téere boobu di taqdisul ashxaas fil fikri suufi eh, ku ñuy wax docteur Mohammad Ahmad Lo bind ko ngir ŋàññi tasawuf ak xas ko ak tuumaal ko lu mu doonul eh, ñu ci jóg nag di ko wax ak di ko leeral sunu kemtalaayal kàttan tey nag ñu war a ànd ak moom ci continuer karaama yi ñu doon wax fan yee mi ngi jëloon ay téere téere bu nekk mu ne boo fa demee da nga fekk muy wax ci karaama nangam te buñ fa demee dañuy fekk safaan ba lañ fay fekk safaanu lim bëgg a wax loolu leeraloon nañ ko ci audio yi njëkk yaakaar naa sëñ ñang sëñ ñang d'accord na ci loolu tey nag ñu ànd ak moom ndax dafa bëgg a tënk mbir yi mu ne daf lay tënkal ay point yoo xam ne point yooyu ci ngay jàngate xam ne karaama ni mel ci euh, sufiyanke yi melu ko ci euh, ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa dafa am nuñ jàppee karaama am noo xam ne noonu la ko sufiyanke yi jàppee maanaam faareq boobu mu indi ci diggante bi sax loolu wérul waaye noonu la mën a def pour mën a Euh, classé ni nga xam ne noonu lay bindee téere bi euh, ñu ànd ak moom nag ci euh, xaajale yooyu mu def ci diggante tasawuf ak lim tuddee ahlu sunnati wal jamaa mi ngi wax ci jukkib ñaareel bi ci téere bi ci page deux cent quatre-vingt-quinze di wax ne wa fii ma yeli gannaaw bi mu paree ci téere yi mu doon wax de téere yi boo ci xool rek daanaka ay karama kesse moko yittel yitteel nak lolu jotto nagn ko jàngat tey mu ñëw nak indil la ay awju ay wal yo xamne bo ca natte da nga xamne ne sunna wal jamaa du tasawuf tasawuf bokkul ci ahlu sunna wal jamaa mu ne wa fi ma yali ahsuru اهم الاوجه التي توضح نظر الصوفيه الى الكرامات وتبين الفرق الجذري بينه وبين نظر أهل السنة والجماعة إليها mu ne lii di ñëw nag lii mu lay waaj a indil daf cee bëgg a tënk wàll yi nga xam ne ci boor yooyu la sufiyanke yi di xoolee karaama maanaam am na bët buñ koy xoolee soo xamee bët bi mu koy xoo bët bi sufiyanke yi di xoolee karaama nag moo lay won maanaam ni mu safaanoo ak ni mu juuyoo carrément bët boobu ñuy xoole karaama ak bët bi ko ahlu sunnati jamaa di xoole maanaam ahlu sunna wal jamaa am na nu ñuy gisee karaama am na nuñ ko jàppee am na fu ñu ko teg sufiyanke yi tamit am na fu ñu ko teg te ñaari teg yëpp benn teg bi la de mais maanaam faw mu indi benn xaajale ne ñii nii leen ko gisee ñii leen ko gisee te loolu muy naan nii lañ ko gisee nii lañ ko gisee loolu waxu ci benn dëgg maanaam loolu wérul waaye noonu noonu la waxkat yi noonu la ñuy waxee mu ne kon daf laa bëgg a jox ay aw juxu yoo xam ne ci ngay xamee ne ahlu sunna wal jamaa nii la ñuy xoolee karaama sufiyanke yi nii lañuy xoole xoolee karaama kon ñu dem ci aw juxu yi mu ñëw nag ne la wajuxu bu njëkk bi ما نم الوجه الأول بينما يرى أهل السنة والجماعة أه؟ أه؟ عدم الحرص وعدم التعويل على الخوارق مخافة المكر ما نم من جمال جيغا خامنة جيغا جيسين أهل السنة والجماعة سين يون موي دي نياك يتوو أك نياك سخلال لو بري ak jël seen lépp def ko wàllu xarbaax wàllu xawaariq te loolu la tax ñu woyefal ca mooy di daw ak njuuy walla di di di ca bañ a baasewu ba mu ëpp ak bañ ca woru nee na loolu tax ahlu sunna wal jamaa ñoom dañoo xaw a woyefal wàllu karaama ndax e, karaama boo ca xuusee ba mu ëpp dafay waral ak ak woru jàpp ne mbir yëpp baax na e, ki yu mel noonu yaay nitu yàlla bi yaay nangam ak euh, yooyu moo tax ñoom yitte woowuñ karaama ñoom ahlu sunna wal jamaa loolu du dëgg moom waaye ñu dem mu ne loola nag jamono ja nga koy gisee kon nooy gise sufiyanke yi mu ne tati masaadirul fikri suufi li tuakkida wa taxussa ala lihtimaami bi amri alxawaariqi wa ictibaariha miciyaaran li macrifati alwali mu ne jamono ja nga xam ne ahlu sunna wal jamaa ñoom dañuy woyefal wàllu karaama ak bañ koo jox yitte bu kawe kawe ngir ne e, di ca xuus ba mu ëpp dafay waral ak woru nee jamono jooju nag ca weneen wàll wa ngay gis nag sufiyanke yi ak seeni téere ñuy dëgëral ñoom ca seen téere yooya di dëgëral ak di ñaaxe ca téere yooya itam ci wàllu ci wàllu xarbaax yi maam dañ ciy ñaaxe loolu moom amul benn téere bu ñaaxee ci karaama loolu amul ci tasaw ba jeex laa wax de amul benn téere moom tamit du ci indi benn téere ne téere sàngam de mën naa wax ne téere sàngam de day day ñaaxe mais boo fa demee doo fekk ñaaxe de doo gis dara waaw day ñaaxe moo tax léeg su sonnee danaan la bi tariqin mubashirin wala bi tariqin xayri mubashir nga xam ne yooyu yëpp ci ay tappale la taxaw mu ne dañuy yittewoo ah, wàllu xar baax waatibaariha ak jàppe xarbaax yi ñu jàppe ko miyaaran ab nattukaay li maarifatil wali yi ngir xam wali wi <laughs> nee na sufiyanke yi ñoom waxuma ne sax di yittewoo ak di ñaaxee ci wàllu karaama ak xar ak yu mel noonu waaye dañuy def ne xarbaax mooy miyaar bi mooy miyaar bi mooy nattukaay bi ñuy nattee wali yu wali pour nga xam ko ci xar baax lañ koy nattee nee na loolu waxul ne maanaam li doon garaaw su fekkoon def ne nit ñi loolu lañ jàpp mën naa wax ne loolu de mën naa wax dëgg ndax boo moytuwul diw ak diw ak diw ak diw boo leen boolee ñoom loolu lañ gëm mais moom danaan masaadir yi nee ñoom ñooy te ñoom ñooy def loolu maanaam masaadir yi ci boppam lii seen nattukaay ci xam wali yu mooy karaama wala mooy xawaariq te ñun kat masaadir yi ñu weesu yépp amu ci moom du luma du taaruf du futuxaatul makkiya du risaalal kuseyriya du ci benn amul benn boo xam ne miyaar bi muy nattee wali yu mooy ay ay xarbaax loolu amul ci téere yi ñu weesu yépp te amul beneen téere tamit ci yiñ jëm lim wax fan la ko teg ñun ba tey nii xamuñu ko xëy na bànneex tiit di wax xëy na maanaam doo xam en tout cas li mu wax amul ci téere yi moom amul téere yi masaadir yoo boo fa demee dangay fekk ne miyaar bi mooy mooy wàllu karaama ndax ñun téere yi liiroon yépp ca wàllu ca futuxaatul makkiye gañ doore woon safaanu lii moo fay nekk maanaam daf lay xamal ne karaama du mbir mu kawe karaama nag yàlla mi ngi koy terale waliyu waaye bul jàpp ne mooy lépp nag karaama am na lu ko ëpp doole jub xocc ca yoon wa buur tëral loolu mooy karaama ju mag ji istiqaama loolu la waxaatul futuxaatul makkiya wax indi timit maanaam nim indee baabu alkaramaat noonu la indee baabu tarkil karamaat baabu tarkil karamaat indil la nag ay mbir yu bare bare yooyu wees woon nañ ko laa xaajata ñu ciy dellu siwaat naka noonu ci risaalal Qushayriya mu wax la lu mel noonu e, naka noonu ci at taaruf lu mel noonu moo ca am naka ci lu ma lu mel am ñun sunu sëriñ si ñu gëm nii ci senegal loolu lañu xam ci ñoom ku nekk fii ba ñuy def ci wàll woowu nettali nga ne sëñ diw daana wax ne mbir mi du ay xar baax ak nangam nangam mbir mi istiqaama la ku fi naaw ba dem arachid fii leen lay xaar ak yu mel noonu loolu ñu ko wax bari na lool loolu dafay mel ne sax sëriñ sépp ñoo bokk li ñu wax si ebasal day wax ne man li ma bëgg mu nekk sama karaama mooy topp sunna loolu kat boo demee ci beneen sëriñ loolu la wax amul kenn ku ci yittewoo woo karaama wala mu teg ko fu kawe loolu foofu fi Ahmed Lo di wax yooyu yëpp dara du ci dëgg ah. léegi kon li Ahmed loo wax fan la nekk fan ci yan sëriñ la nekk sëñ diw seen diw sëñ diw moom dafa yittewoo karaama wala suñu bàyyee loolu sax ndax ñun ak moom nekkuñ ci sëñ diw ñoom ñi ngi ñi ngi ci masaadir masaadir yi ban mas masdar moom moo ne karaama lu am solo la lu ñu war a sonni pour am ko pour xam ko pour nangam déedéet waaye yi fi am yépp li téere sunna yi di def la ñuy def mooy dañuy saxal masala mi ne loolu lu am la yàlla da koy terale ay wali ak nangam nag dees ko war a gëm wala su ko weddi comme mu'tazila yi ak yu mel noonu léegi ñu continuer dem wali yi nag yàlla da leen comme diw ak diw ak diw eh, indi ci ay misaal comme niñ ko indee ci saxaaba yeeg taabiroon yi téere tasawuf lii rek la ñuy def defuñu leneen amma nag eh, li wax ne ñoom miyaar bi ci xam wali yu mooy ay karaama eh, loolu ay waxam la moom mu yokk ca ne ay ann saaxibal xawaariqi inda suufiyati la budda an yakuna lahu min al wilayati nasibun beneen wax boo mi ngi noonu boo xam ne amul mooy <clears throat> boroom xar baax yi képp koy def xar baax am nga ci sufiyanke yi ñoom amal nañ la am na loo séddu ci wàllu wilaaya mu mel ne kon ñun li ñu doon wax ci tiir yi ñu doon wax ci sufiyanke yépp amul fenn fu sufiyanke yi di tàqalee naan lii mooy istidraaj ndax istidraaj ay xawaariq la ki yàlla di jay ay xar baax lay def jabarkat bi ay xar baax lay def yonent ay xar baax lay def waliyu bi ay xar baax lay def ñooñ ñëpp soo boole la ñuy def loolu mooy xaariq loolu mooy ay xawaariq xawaariq yooyu nag mu tasaw yu fay dañoo wax ne bu fekkee yonent ko def kooku karaam kooku mucjisa lay tudd su fekkee ne ki ko def nit ku baax la ku sell loolu lañuy tuddee karaama su fekkee ne xarbaax baax jooju jaaxal nit ñi ab kàccoor a ko def wala ku njabarkat loolu istidraaj lañ koy tuddee wala ak njabar lii de la mu tasawifa yox kon jëluñ ne karaama ju nekk wala xar baax rek ku ko am rek am nga dara ci wilaaya comme li Ahmed loo wax ni li li muy li muy tegtaloo limi tektalo ngir lolou nak ngir wonene karama mom la nit ñi di yitté wo ci tasawuf te moy mooy kay bi ñi nattee waliyu nee lim ci kiwé moy tuusi naqala tuusi anil junaydi cheikhil sufiyati qawlahu من يتكلم في الكرامات ولا يكون له من ذلك شيء مثله مثل من يمضغ التبن دينغا mu ne Junaydu du na te loolu luma moom moo ko indi ci page 390 moom laa wàccee nii euh, ak tuusi wax ne Junaydu nee na euh, man yatakallam fil karamaat képp kuy wax ci karamaat wala yakunu lahu min dhalika shay'un te amu ca dara amul dara ci karamaat mathaluhu misaalum kooka mooy misaalum kuy sàqami ngooñ muy sàqami ngooñ léegi loolu lan lay tekki maanaam lan la ci Ahmed loo mën a dégge ba ne loolu mooy dañoo yittewoo ay karaama wala karaama mooy nattukaay bi ñuy nattee waliyu man comprendre ma lu mu bëgg a dégg fii ci wax ji Junayd du dafa wax ne képp koo xam ne da ngay yittewoo da ngay maanaam da ngay wax ay karaama di ko yittewoo di ko di ko waxtaan di ko nangam te amoo ca dara yow li ngay def amul benn sens de yow yaa ngi mel ne koo xam ne dangay ngay ngooñ maanaam yéey ngooñ ab nit mën naa tiim saakum ngooñ nii tiim ko di ko sàq mi ba mu jariñ ko dara amalu ko benn fayda di wax karaama nag di wone comme si ngay wone que ne yow dangaa mën def karaama wala da nga koo xam wala da nga ko nangam nga xam ne ni ngay waxee ku la dégg day jàpp na yow moom ci def karaama nga dëkk fekk yow loolu lépp doo ca dara kooku yàgg kuy sàq mi am ngooñe yam amul benn njariñ li ngay def léegi nag man sama problème mooy Ahmed loolu lan la dégg ci nas bi ci tex bi mënuma ko wutal sax aw lay ne nangam la ci bëgg a dégg ndax du wax jii rek wax jii rek wax ji dafa am yeneen i wax sax yum bokkal yum nuróol mutasawifa yi keneen ku dul julee di wax na lu mel nii karaama nit du ko wax waxinu woote maanaam nga xam ne nim ko nit ki waxee soo ko déggee rek nga xam ni kii dafa lay won ne moom ku maîtriser mbir mi la de Sidi Ahmed Tidiane wax na ci jawaahir lu mel noonu je nit ki su fekkeene dafay dafay woote karaama ci se fekk ne li muy woote moom àggugu ca du ca àgg ba abadan kuy woote lu mu àggul du ca àgg ba abadan misaalum kuy waxtaan ci karaama rek di ko di ko di ko waxtaanee di ko bégee di di ci waxin waxin woo xam ne ku la dégg day jàpp ne dafa am loo ca am te amoo ca dara yàg kuy sàq mi ngooñeyam léegi nag foofu nan lañ ci mën a déggee ne eh, loolu dafay nekk texte boo xam ne dafay tegtale ne gaa yi siin nattukaay ci waliyu mooy karaama man comprendre xaw ma loolu xaw xaw ma comprendre ma lan la bëgg a dégg ci texte bi loolu benn la waaye du ci texte bi rek la sukkandiku mu ne wa fi tarjamati ahadil mashayixi yaqulu ibnu sib eh, ibnu subki Euh, ibnu subki wax na ne loolu sax wéru maanaam da nga naan kay yaquulu taaju diin ibnu diini subki wala nga ne taqiyu diini subki ndax ñaar ñooñu la léegi nag boroom tabaqaatu shafii yi nag mooy taaju diini subki mu ne taaju diini subki moom wax na ne lan la wax bi muy tarjamaal kenn ci kilifa yi ca la wax wax ji muy bëgg wax limu toxal nak moy wa qila dañu ne innahu rubita wa ulqiya فعظم قدره وعلم انه من اولياء الله مني بي وختي غوغو مني كليفه غوغو دنجكو مسا ييو سانيكو تي تاكو بوم اي خاج ak euh, gaynde yi pour ñu lekk ko wala yu mel noonu euh, waaye nanguwuñu ko laal kenn laalu ko gaynde yi dañ koy tiim nii du ko ki defuñu ko dara nee nag ci loolu nag la ay mbiram siiwee ñu xam ne moom ci nit yàlla yi la comme maanaam sànni nañ ko ci xaja te xaj yi nanguwuñ koo laal kenn jegewu ko euh, tiim ko noonu rek kenn gaañu ko kenn defu ko dara lu koy metti kon loolu tegtale na ne moom ci nit yàlla yi la bokk dégg nga mu ne wa haada yadullu ala anna alxawaariqa laa tafsiira laha inda haulaai gayra alkaraamati wal wilaaya maanaam mu ne lii texte bi mu indi nii dafay tegtale ne li muy tegtale ne mooy xar baax lewul dara lu dul wilaaya ak karaama maanaam def lu jaaxal nit ñi tegtelewul dara lu dul karaama def def lu jaaxal nit ñi tegtalewul dara ci sufiyanke lu dul wilaaya loolu la Ahmed loo déggee ci texte bi man nag avant may dugg ci texte bi li may njëkk a laaj mooy moom téere bii mu yàpp ni lu muy jële jële ko ci ak téere du téere tasawuf man nag li tax moom mu yàpp ko ba lu mu lu muy wax fa fa la koy jële wala dana fa sukkandiku lu baree bare téere bi mooy tabaqaatu shafiiya bu subki tabaqaatu shafiiya téere la boo xam ne téere eh, buy indi nit ñi nga xam ne ci madhabu shafii lañu bokk eh, di ay kilifa di ay fuqaha shafiiyun ñooñu lay jël di eh, di wax seeni mbir ñooñu nag xaaliban ñi muy wax ñëpp kenn du ci nekk sufiyanke maanaam masalan kii muy tarjamaal nii naan ahadul masaayixi kii du sufiyanke ki koy tarjamaal ci boppam te muy sub kii du sufiyanke maanaam du sufiyanke li ma ci jublu mooy kenn mënta wax mooy du junayd du du du du du kushayri du maanaam du koo xam ne ci tasawuf ku ñuy itibaar la ne kii mën naa am xëy na te asara dafa jeexitalu na ci tasawuf beeg ndax baayam di taqi duni subki taalibeb ibnu ataa illahi sakandari la jaa jële na ci moom dara ci tasawuf bàyyi waa ji mais waa ji moom mu nekk kilifa ci tasawuf moom loolu amagul léegi ki muy tarjamaal mii te Ahmed Lo di ci sukkandiku nii kooku du sufiyanki tamit léeg-léeg lii waral sukkandiku bi kenn xamul beneen bi mooy bu ñëwee ci texte bi muy kii nii maanaam daf koy dagg dafa am lu mu ci jël loo xam ne ñun sax dese nañoo comprendre li mu bëgg wax lan la lan moo xew bañ koy yeew eh, léegi maanaam yu baree baree baree mi ngi ci tex bi loo xam ne moom feeñul léegi nañ ñun nooñ wàcce texte ba pour mbir mi leer bu ñu ñëwee ci tabakaatu tabaqaatu shaafiiya nag ci jukkib juróom-ñeenteel bi eh, dañuy fekk ci page 400 sub kii di tarjamal فقيه بن فقيه الشافعي بطد إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل كوكو لا يترجمال كوكو دو أب متصوف ببين من كوكو موي قاد القضاة مجد الدين أبو إبراهيم التميمي الشيرازي من يوتي باج 41 401 daati wax ne tafaqaha ala walidihi wa qara at tafsir ak yu mel noonu wax ci moom lu bare bari nag daat ne nag kaana mashhuran ku siiw la woon waajooju te mooy ismail ibnu yaxya ku siiw la woon bi diine bi diini ci diine maanaam ku siiw la woon ci am diine ak mën a jaamu yàlla wal xayri eh, wal makaarimi ak jikko yu rafet ak eh, mbaax wa xifdal quraani ak mokkal alxuraan wa wa kasrati tilaawati ak bari lu muy jàng alxuraan moom waa jooju eh, yii yëpp boo ko indiwul li tax ñu sànni ko ci kii bi ba dara laalu ko lool du leer mu ne kooku siiw googu mu siiwoon nag ba tey teg na ca walahu manzilatun indal muluki rafia moom amoon na wàccuwaay bu kawe ci buri yi waa ñu doora a indi nag li tax ñukoy japp ak ñukoy duma mune nak eh, umira ba'dhum bi idhaari rafdui fi ayaamihi ca jamonom ca jamonom mom mom sax buur yi dañ ko fonkon kenn digalu ko pour mu pour mu pour mu pour mu def rafdu rafdu moy. nga woné né da nga bañ alu bayt nabi wa kër yonente bi alayhi wasallam ca jamono ji mu doon dund moom ñenn ci borom xam-xam yi nekk foofu dañ leen doon exiger loolu di leen ko forcer pour ñu wone ak mbañeel ci waa kër yonent bi loolu nag moo ngi moom yemul ci ñu ñàkk koo def rek mu noppi waaye dafa jóg di ca xeex fa qaama fi nasri diini qiyaaman baligan mu taxaw ca taxawaay bu rafet rafet ci wàll woowu loolu sax tax na liñ koy fonk fonk wa uziya bi hada sababi maanaam duma nañ ko toroxal nañ ko lor nañ ko lu bare bari ci sababu loola muy jóg di ko xeex noonu dégg nga ay nit ñu taxaw ne faaw ngeen wàññi seenu mbañeel ci waa kër yu bi salaa moom nag mu jóg di xeex loolu lor gu nekk kii na ko ca bokk na ca lor ya nag ñu ne nag moom benn dañ ko yeew ba noppi daal koy sànni ci ay xaj ak i ak i gaynde ak yu mel noonu waaye nag day gosaani ci ay e gayna yu xiif ak wala nangam nangam pour ñu gaañ ko wala ñu lekk ko wala ñu uh, yu mel noonu waaye bañ ko fa sànnee te dañ koo yeew taxul maanaam kii ye def ko dara ak li mu siiwe woon nag ci diine ak mbaax ak jàng alxuraan ak mokkal ko ak yu mel noonu ak ni mu tënkoo sunna ak ni mu doon défendre diine ji ca jamono jooja eh, léegi yooyu yépp boo ko boolee nag ñu bëgg koo toraxal sànni ko ci ay xaj xaj ya war ko lekk wala gaynde yaag yu mel noona ñu war koo ndékkee léegi nag loola nag ñu sànni ko fa yeew ko bam ne ngoddu sànni ko fa gaynde yi taxaw nii tiim ko di ko xool kenn def ko dara ñu xam ne moom nag dafa bokk ci nit ndax nit yàlla mooy ñi nga xam ne du leen gàcceel <clears throat> du leen gàcceel wala mu bàyyee leen rek seen bopp allahu allahu waliyu alladina amanu yallah mum moy mom mo mengok ñom c'est à dire bin nasri wa ta'yid wal hifdh wal ri'ayati ak yu mel non legui nak nitu yalla yo ñu xamne nak ki ci nitu yalla la bok ci nitu yalla ci lan lañ ko xamé xamé wuñ ko ci li kessé dé mom dafa am lu bare bare bare ci ay jikko yo xamné ahmed lo tuddu ko té yoy dafa am ci mom legui lol nak boko bolé ak situation bi am nak ak taxaway bam ci taxawon nak kooku nitu yàlla rek moom mooy def loolu moom mooy àgg foofu te dara du ko lor waaw wa kaana dalika sababan fi xislaani rafada loolu axamet loo boolewu ko ci maanaam e, liñ ko bëggoon a sànni foofu pour loola lekk ko te mujj koo lekk loola mooy sababu gàcceel na ñi nga xam ne ñooy rafida yi ci wàllu woowu gàcceel na leen ndax Ahmed Lo bu indi woon ay rafata ak raf doog yu mel noonu dañuy xam ne kon waa ji jàmbaar la waa ji ku tënku ci sunna la waaye yooyu bu ko indee arab saudi du nangu loolu nga naan diw dafa tënku ci sunna ba pare naan sufiyanke la loolu mënut a nekk eh, kon leer na ne maanaam Ahmed Lo eh, même fi muy jëlee fi muy jëlee xabaar yi sax ak fi fi muy daliloo daanaka du fa ndax maanaam mutasawifa yi boo leen bëggee jàpp da ngeen dem seen téere waaye tabakaatu shaafiiya maanaam foo xam ne day taraajimal ay fuqaha nga jëli fa ab baat boo xam ne daanaka jumla ba nga fa jëli kenn comprendre lan moo xew foofu faaw dangay delluwaat foofu pour xam lu xew boo fa delloo sax danga nga fekk da nga xam ne waa ji waliyu la buñ la nettalee xibaar bi yépp léegi nag euh, loola di fa daliloo daanaka ci ñàkk xorom lay bokk léegi nag suñu indee dalil yooyu mu indi yëpp nag lenn daf cee tegtalewul ne lenn daf cee tegtalewul ne miyaar bi ci wilaaya mooy dangay def xar baax maanaam kii eh, même bu deful woon xar baax moom ci nit yàlla yi lañ ko boole ci lu dul loolu waaw eh, léegi nattukaay biñ natt maanaam masalan su fekkoon ne deful dara dara ci diine nekkul nit ku baax du julli juru juróom xifzul xifzul quran wattuwu ko te du ko jàng waaye def na lii kenn du ko xooliyu la maanaam nit yàlla yi wala bokk mutasawifa yi duñu wax diw waliyu la c'est parce que dafa def xar baax déedéet ndax dafa am yu bare bare bare yu ñu wax ba pare door a wax loolu kon la ibnu arabi waxoon ca futuhaatul makkiye rek moo di ne nit ki su fekkee ne xarbaax gi dafa feeñ ci moom te fekk moom mu nekk koo xam ne ku ñu xam ci topp sunna la mu mu am ci sax balagal gaayata fi itibaaci sunnati ak yu mel noonu foofa la ñuy waxee ni lii karaama la de su fekkee ne nag affaire bi dafa ñëw même mbir ma su ko defoon même mbir mi rek maanaam benn waaye ñu sànni ko ci ay ci ay ci ay euh, kii ay xaj te xaj ya lekkuñu ko te moom mu nekk kàccoor du tax ñu ne waliyu la tax ñu ne waliyu ñun ñi ngi mu xaakama ci lan ca topp ak sunnaam ga ak nangam ak nangam ku mel noonu ku nii ku ku ay jikko ni ku ay kiwam melni ku xolam seleni. ni nangam ak nangam ak yu mel nonu koka nak bu nangam ji xar bax ji génnee ci mom Lola karaama lay tudd lola ah, loola lay tudd ju nak képp ku génnee karaama rek da ngay dugg ci bir mbir mi lolu amul benn téré bu ndaw wala bu mag ci tasawuf Lolo wax lolu lolu amul fenn Ya, amul téré sunna bu ko wax tamit donc kooku waxe ahmed lo kese te waxe ahmed lo jëru sa kon léegi bu ñu indee waxam jooju wax yii mu wax nga xam ne wax yi ci boppam dafa tegtalewul loolu dafa tegtalewul li bëgg a wax ba pare dañuy indi nag safaanu wax yi ci biir mutasawifa yi xam nga moom day dem ci ay tabaqaatu shafii ak di wëri foofa lu mu fa lu mu ñun nag dañuy dellu ci biir téere mutasawifa yi génne leen ñoom lan lan la wax ak fan lañ teg karaama bu ñu delloo ci tasawuf nag ñu dem xooli lan moo fa nekk boo delloo ci tasawuf بودمي تي تيري بوني واخ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر كيكو بند موي الشيخ عبد الوهاب الشعراني ميو غنا ياب نيوم عبد الوهاب الشعراني بو مو بند يواقيت والجواهر بودمي تي يواقيت والجواهر نك ا تي 487 دا فك مو ديف المبحث الخمسون ci walu karama lako ko def mu ne almabhasul khamsun fi anna karamatil awliya haqqun ara fi fii lim fi saxal moy day saxal ne karama nit yàlla yi lu wér la lan motax mu wér ak ci lan la jóge mune ne hiya natijatul amali ala wafqil kitab wa sunnah manam seen al qur'an ak sunna gu jéggi dayo mom moko sabab résultat wu lolou la kon karaama ñëwul rek ne affaire bu jaaxal di ñi la wala lu xar baax la lu xotti baax la déedéet seen jéggi dayoo ci topp sunna moom moo leen àggale ci daraja yu kawe yooyu yamuñ rek ay nit ñuy woote woo sunna di fen ak yu mel noonu mais ñoom dañoo dépassé jéggi dayoo ci topp sunna topp yonent bi salaa ak sopp yàlla ak topp yàlla ci zahir ak baatin ci lu amul benn caaxaan amul benn triche amul lenn luñ ci def te bakkan tax waaw rey seen bakkan euh, soobu ci yoon yàlla ba jeex tàkk euh, loolu nag daraja jañ ca toll moo tax euh, yàlla di feeñal ay xar baaxam ci ñoom xarbaaxam ci yoon moo tax mu ne nit du tëb rek am karaama de mu ne mu ne wa man laa xaala lahu laa karaamata lahu gis nga maanaam ku amul xaal doo am karaama maanaam ku amul xaal mooy koo xam ne say mbir dara jagu ci dara sunnawu ci dara nangamu ci doo am karaama du jaag na nga def xarbaax rek kon li Ahmed Lo wax moom unwaanu li unwaanu shaaraam ni mooy wax ne li Ahmed Lo wax du dëgg kulla man laa yaxriq alaadata fi lulumi walmacaarifi wal asraari wal lataifi lam tuxraq lahu alaadat maanaam pour nga xar baax pour nga def ko ci wàllu tasawuf da nga daa am looy njëkk xar baax ba pare da ngay xar baax ci xam-xam xar baax ci macaarif yeeg lasraar xar baax ci góor-góoru ci jaamu yàlla xar baax ci bari looy jaamu yàlla foofu ngay xaree baax def ci lu kenn mësta def nag doora mën def leneen نورا مانا خار باخ فنن يا انجيس لور رك موي عنوان بي كون عنوان بي رك ويدنا لي موخ موم تي باج بي تي بوبم بو تي واتي دا فاي نيتالي موم شعراني دا فاي نيتالي ني سما سيرين علي الخواص واخنا ني الكمل يخافون من وقوع الكرامات على ايديهم خنا لولو غنا Ahmed Lo daf ne ñun ay karaama la dañ ci mooy miyaar bi ñuy tànnee ci la ñuy xamee waliyu bi ci la ñuy nangam Chaaraani nee sama sëriñ Aliyul Xawaas nee na góor yàlla yu mag yi dañuy ragal li ñu gën a ragal mooy karaama feeñ ci ñoom xam loolu ci liñ gën a ragal du caageen lu ñuy wuti de dañ koo ragal maanaam su loolu bu amee dañuy am problème waaw su karaama feeñee ci seeni loxo dañuy am problème suñ defee xar baax te ñun nit yàlla yi xab yëpp loolu la di karaama suñ ko defee day am problème alkummalu yaxaafuuna min wuqui eh, karamaati ala aydihim wa yazdaaduna biha wajalan wa xawfan lu mu leen di yokk ñoo eh, ragal yàlla ak tiit gu métti la la leen yokk ndax lan karaama ak istidraaj dañoo nuroo ñoom ñaar ñëpp dañ koy def ci nit kon mën naa am ñoom martaba martaba yiñ toll yàlla moo leen bëgg a jey daati wane xarbaax yooyu ci ñoom ñu naagu rek daal di sànku léegi nag comme loolu lu mën a nekk la lu xel nangu la ñoom bu affaire bi feeñee rek dañ ne mbaadu lee daal tiit kon ñoom kay kon ana kii wax ne karaama la ñuy sukkandiku ko kay lam wax dara du ci dëgg maanaam ñoom dañ ne nit yàlla yi bu karaama feeñee ci seen loxo dañuy tiit ragal yàlla am tiitaange ci seen xol mbaa du ay jay mbaa du nangam mbaa lii du ma ca jaaree nangam yu mel noonu mais nekkuñu fi kay ku wane karaama rek di wane na yow yaa fi nekk yaa fi man yaa fi nangam ak nangam ak di xool nan ngay def ba gën a yokk say karaama loolu amul ci tasawuf te am na nag kër Ahmed loo xëy na. dégg nga mu ne lan moo tax ñuy tiit ak a ragal yàlla mu ne lixtimaali an takuna stidrajan li li li mu yanu xel xel xel yanu na ne yanu na maanaa maanaam loola mën naa nekk mën naa bañ a nekk karaama mais mën naa nekk istidraaj yàlla moo ko jayee ay nit ñoo xam ne dañoo gis seen bopp ci seeni jëf yàlla jay leen yokk leen ay xar xarbaax ñu def lu jaaxal nit ñi nit ñi yéemu ci moom ak ñu mel noonu ñu jaaree fa daati yàqule nit yàlla bi bu baax feeñee ci moom loolu lay yëg moo tax muy tiit moo tax muy tiit Euh, loolu nag wuute naag mojisa mojisa moom bu ko nit ki demee bu ko nit ki defee sax bu ko yonent bi defee da ciy damu daat ciy taxaddi gaa yi defi leen ci wàllu woowu ndax loolu istidraaj mënu cee dugg ndax anbiyaa yi ñoom loolu dañ leen a wax ñu feeñal ko mais nit yàlla yi eh, dañ leen a wax ñu nëbbu ko dañ leen a wax ñu nëbbu ko Euh, loolu mooy mbir mi kon aliyinil xawaas lam wax te Sha'raani yi mii taalibeem nettali ko te moom la yeneen nit yàlla yi wax itam mooy ne karaama amul nit yàlla bu ci suwete wu maanaam boo xam ne dafay dafay firi su defee karaama waaye lii am mooy su karaama amee ci ñoom rek dañuy am problème ndax mën naa nekk leneen lu dul loolu mën naa nekk leneen te beneen bi karaama ñu koy def dafay nekk lu lu leen rëcc am du du du dañ koo bëgg wala dañ ko dañ daf daf leen a neex wala dañ ci am plaisir ci def gi waaw waaye du ci am dara du leen ci neex te dañuy tiit yàlla mbaa du leen nattu mbaa du leen nàngam wala yu mel noonu loolu mooy mbir bi kon li Ahmed loo wax ne gaa yi seen mbir yëpp karaama la dañuy te ci lañuy natte nit yàlla bi su fekkee moom lay natte nit yàlla kay nit yàlla bu ko def day war a kontaan nga xam ne yow kon nit yàlla nga waaye nit yàlla bi bu xar baax bi feeñee ci moom dafay jàpp ne moom dafa nar a yàqule moo tax waaw bu defee karaama day jàpp dafa nar a yàqule ndax istidraaj mi ngi fi te yàlla da koy naxee ay jaam di leen ci jay kon mbaa lii du bokk ca loola ñu daati tiit nag am jaaxle lool ak am tiitaange lool waa lii danañ ko def ci loo xam ne ñëpp nee nañ lii mooy meeyaar bi Ahmed Lo li muy wax xam na ci dara ngir yaakaar kon danga naan loolu nga yaakaar ne mooy meeyaar bi mais bu ñëwee ci téere yi moom safaanu li nga bëgg a wax loolu lañ fi fekk. Euh, dégg nga maanaam léegi saaraani moom duñ ci génn duñ ko génn. ci biir caaraan yi ci bunt boobu ba tey fi mu nettalee ali na xawaas daf caa nettaliwaat ne <clears throat> dañ koo laaj ci wàllu maqaama yeeg li nit yàlla yi di def ak yu mel noonu muy wane ne li gën ci nit yàlla gi mooy nëbbu karaama ji ak bañ koo def te am na ñu ko man sax te jotuñu koo def noonu lañ ko far bàyyee te yàlla jox na leen kàttan ñu def ko من وقد أعطي الشيخ أبو السعود ابن الشبل مقام التصريف في الوجود فتركه مانام كيني وخ أبو السعود ابن الشبل موم ليوح عاقل زمانه موم دنكو يالا جوخون نكو مقام التصريف مانام موم منا أم كاتنوك دف دارا دف دارا موخم كيوالو كراماك يمال نون mu ne baax defu jutu koo def te am na kàttan bi de maanaam may nañ la pouvoir boobu mais defoo ko utiliser wul affaire bi ñu ne ko nag ñu ne ko nag yow lu tax nga am ko ba pare nga man ko te defoo ko mu ne nahnu qawmun tarakna alxaqa yatasarrafu lana moo tax fa kaana akmala min alcheikhi Abdul Qadir al Jeylaani maa annahu tilmisuhu moom taalibeem Abdul Qadir Jeylaani la waaye nit yàlla dañuy wax ne moo raw Abdul Qadir Jeylaani te loolu la ko rawee maanaam man ko te bañ koo def man ko te delloo mbir yëpp ne mel ne ku ko mënul ak yu mel noonu kon du faaw nga def ko du faaw nga def karaama pour ñu xam nga def ne ci charte yu bi mooy faaw day def karaama bu doon loolu kon kii dana ko def wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen misluhu kasir ñoo xam ne defuñu benn karaama kenn xamalu leen benn benn karaama la wax de kenn xamalu leen ko même sunu réew mii am na ñoo xam ne kenn xamalu leen benn karaama ay sëriñ yu mag am na ñoo xam ne benn karaama lañ leen di waxal am na ñoo xam ne ñaar la ñuy wax ne def na ah mos naa def lii de après keneen dem mos naa def lii léeg sax du wér maanaam léeg-léeg dañ koo fent noonu rek waaye loolu wérut waaw kon nit yàlla yi ñoo la gën a daw karaama fuuf dégg nga mu Abu Saïd Abu Saoud moom dañ koo jox mu mu mu bañ defu ko dégg nga mu ne mu ne sama sëriñ ba nee na alil xawaas nee na alkaamilu min al awliyaa man maata عن التصريح والتدبير اكتفاء بفعل الله فيسرق الناس ماله حال حياته ويسرقون ستره وشمعه بعد مماته فلا يقابل أحدا بسوء بخلاف الولي الناقص ولي mat nag dëgg dëgg moom yoonam du nekk ci jéem a def benn karaama ak yu mel noonu loolu lépp da koy daw doy lool ni yàlla di même sax de dees na toog ñu sàcc ay xaalisam mais du def benn tasaruf pour xam ku ko sàcc de waaw du def benn kii benn kashfu pour xam ne diwoo ko sàcc wala noona day bàyyi bu jàll même sax mën naa faatu ñu sàcc ak càngaayam du tax mu yëngatu de def dara du du du fayante ko kenn lu ñaaw du fayante ko kenn lu ñaaw ci même page bobu ci la wax ne li war fala yaxtaaju يعني لا يجب عليه إظهار على الولي إظهار الكرامة إنما الواجب واجب لورت ولي به سترها موي ملاق كرامة هذا ما عليه الجماعة شعراني لي لمولم تصوفي لي لن داكور ne dafa war ci moom waa léegi su fekkee ne dañ ne miyaar bi mooy faaw nga def karaama kon kay mooy karaama dees ko war a feeñal lu tax caaraani ne karaama dees ko war a nëbb loolu mooy li jamaa bi d'accord te daa war de nëbb gi dafa war moom caaraani ba tey mooy nettali mu ne zakara cheikhu fi lbaabi alxaamisi wa thamaaniin wa mia mooy ibnu arabi alxaatimi radiallahu anhu نانا شيخ ابن عربي وخنا تي فتوحات المكيه تي بونتو بوبا تيمير الجروم جوروم نيت فوك اك جوروم مو ولا يخفى ان الكرامه عند اكابر الرجال معدوده من جمله رعونات النفس الا ان كان للنصرة دين لولا لولا تيكون في كوم ني سن اهل السنه لي جابوا موي كرامه دا فوار نيك لنصره دين سودو لولا امول فايده mane ko loolu mutasawifa yi so loolu lañ wax wax jaa ngi nii ibnu arabi def ne nit yàlla yu mag yi karaama ci ñoom dañ ko konte ci ñox ñoxi bakkan maanaam eh, mbiri bakkan la daal bakkan moo koy jéem a def moo maanaam am na tuuti lu ci taq-taqi bakkan lu ci nekk ci karaama ndax da koy def et puis nit ñi dañ lay yéemu ci yow dañ lay fonk dañ lay nàngam ak dañ yéemu ci yaw xam ne yow mi doo nitu kese ak yu mel noonu kon am na daray bakkan lu ci nekk kon fan lay amee fayda su nekkee li nusrati diin da nga koo def ngir eh, maanaam dimbali diine ji aw jël bi maslaxa wala ngay indi loo xam ne njariñ la ci jullit ñi waaw njariñ la ci jullit ñi loolu moo tax léegi nag la muy feeñee te yàlla di ko feeñal te muy bawoo loolu tax ñu tuddee ko karaama te yàlla daf la ko teralee yow ki nga xam ne yaa jaar ci yoon wi yàlla teralee la ko ndax dañ ne karaama mooy teraanga mu ngi jóge ci mbaax ci turu yàlla albarru moom nag loolu muy def te muy teraanga ji te moom albarru mu koy def du ko defal lu dul al abraar mooy gaayam yu baax ya te mooy nit yàlla yi kon maanaam yii ñu jotal liir rek dajji na li Ahmed loo bëgg a teg li muy wax loola mu wax noonu ne miyaar bi mooy karaama bu nit ki ci lañ koy natt eh, ak yu mel noonu indi ci ay ay ay yooyu yëpp dara du ci dëgg da ngaa jël sab texte daati xool li nga jàpp ne li nga bëgg li nga ci bëgg a dégg nga ne nangam moo ci am daati fas sa kanam waaye nag bu ñu delloo ci téere tasawuf yi ci boppam safaanu li nga wax moom fooy nekk léegi kan la ñuy weddi est-ce que dañuy jàpp sa benn xisa boobu nga wax noonu sukkandiku ci bind ci sa kii wala dañuy sànni sa wax yooyu yépp ca mbalit ma jàpp ci lii nga xam ne man benn téere rek laa waxagul nii de am na ay téere téere téere yu ci wax ci wàllu woowu amul benn téere tasawuf boo xam ne miyaar bi ñuy nattee nitu yàlla mooy xam nga mu'tazila yi dañuy wax ne eh, eh, mu'jiza maanaam yonent dafa war a def mu'jiza wala wali yu wër te def mucjiza ñoom dañuy wax mu leer lan moo tax mutasawifa yi amul kenn ku mos a wax ne karaama dees ko war a def wala wali yu yu force day def karaama wa illaa du nekk wali yu loolu kenn mosu ko bind fenn te loolu la Ahmed loo bind te dëgër ci fit wax ne mutasawifa yi loolu lañ sartante ñu ne faw nit ki day def karaama su ko deful du wali yu mu ne loolu mooy seen sart fan lañ ko bind fenn fan lañ bind ne miyaar bi mooy day def karaama loolu amul fan lañ bind ne xawaare képp ku ko def am nga dara ci wilaaye loolu tamit amul maanaam yi mu wax yépp tegale ko dara du ci dëgg ba tey maa ngi ci alyawaqit wal jawahir bu al imaamu shaaraani anawiya te mooy karaama dëgg-dëgg ci nit yàlla yi du karaama ju ñuy gis karaama ji dëgg-dëgg nee آه، آه، موي موي أن يحفظ الله على العبد آداب الشريعة ويوفق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها وأن يحافظ على أداء الواجبات والسنن في أوقاتها مطلقا والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل والحقد والحسد وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمرافق بالمراقبة مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله تعالى في نفسه وفي الأشياء لولو موم موي كرامة جيغا خان موي الكرامة المعنوية تبوب موي كرامة دي دي دي موي كرامة نتيا لي كرامة جي دي كرامة يحس رك كوكو أمنا لو جمانا لخاسو موتاح بوغيني بوفيني تي غاي غاي دي جام بروبلم موي كرامة بيغا خان يمكن أن يدخلها المكرو والاستدراج dégg nga mu ne moo tax bu ñu amee karaama jële dañuy kontaan mooy jub mooy xol bu sell mooy aw ci yoon wi euh, respecté euh, rëdd sharia yi ak yu mel noonu léegi nag dafa wax lu am solo fii moom Sha'raani mu ne fal kaamilu man qadira ala al ci wa katamaha mu ne alwaliyul kaamil maanaam nit yàlla bu mat sëkk mooy ki mën def karaama te bañ te nëbbu ko foofu la ñuy rawante nit ñi rawante wuñ ci wane karaama de ci tasawuf xanaa ci kër Ahmed Lo ak ak ak nam nam jàppee waaye ci tasawuf moom nit ñi fi ñuy rawante mooy ñàkk def karaama la ñuy rawante <laughs> rawante wuñ ci def karaama de fal kaamilu man qadira ala al karaamati wa katamaha Seydi Ali al Xawaas nee na moom mooy nettali Sha'raani mu ne seydi alil xawaas sama sëriñ ba nee na ida waqaa ala yadi lkaamili sheyun min alkaramati almaxsuusati maanaam niti yàlla bu matee bu benn mbir wàccee ci karaama yi ñu mën a teg bët bu feeñee ci moom rek dafay tiit xaafa wa dajja ila allahi taala wa sa'ala allaha sitrahu bil awaidi dégg nga wa an laa yatamayyaza an il aamati bi amrin yushaaru ilayhi fiihi dégg nga loolu euh, maanaam dafay tiit dafay ñaan yàlla yàlla suturaal ma ci lii maanaam bu nit ñi xamee day xam ne kii wali yu mag la te bëggul loola feeñ nit ku nekk bëgg ngaa làqatu bëgg ngaa mel ne amatu naasi kenn du la joxoñ ci dara nit yàlla yi noonu la ñuy nëbbatoo waaye bu say mbir feeñee ay karaama ñëpp gis ko loolu mooy ñëpp xam nañ la te nit nit yàlla bëggul ku xam moo tax bu loolu jàll bu loolu amee dañuy am problème waaye yàlla des fois loolu nëbbut nëbbutu faw mu feeñal la ndax nit ñi mën a jariñu ci yow waaye ñoom dañuy am problème boobu waaw dañuy am problème boobu moo tax ñoom xam-xam ak jikko ju rafet yooyu daal lañ bëgg karaama yoo xam ne bëgg nañ mu feeñ ndax nit ñi dañ leen cee war a roy jëmmi nga am loola rek même bu la ci kenn royul eh, daraja yu kawe waaw daraja yu kawe rek kon tasawuf la lañ wax dañ ne nit ñi ñi ngi rawantee ci lan ñi ngi ci ñàkk def karaama ak man ko te nëbb ko foofu lañu ñuy rawantee nit yàlla yi foofu la ñuy rawantee waaye rawante ci def karaama de karaama jii ñuy teg bët moom moom lu néew la ci nit yàlla yi maanaam lu lu lu lu fooru lool ba tey maa ngi ci maa ngi ci ngi ci Sha'raani mu ne mu ne inna a'zama te loolu waxi waxi waxi Muhyiddin la ibnu Arabi al-Xaatimi anhu mu wax ne inna a'zama al-karaamaati karaama ji gën a rëy gën a màgg gën a kawe ci karaama yi mooy du mooy mu def luñ mën a gis de mooy an yasila al abdu ila xaddin law gafila law gafala al aalamu kulluhu an illahi taala an illahi aza wa jalla la qaama zikru dalika al waliyi maqaama zikri al jamia maanaam karaama ji gën a mooy nit ki egg ci fàttaliku yàlla ak ñàkk koo fàtte ak wéttalikoo yàlla ci dayo boo xam ne bu ñépp maanaam àdduna bi yëpp bu buñ fàddu woon nga xam ne fàttalikuwuñ yàlla moom benn fàttalikoom dafay taxaw taxawaayu fàttalikub àdduna bi yëpp waaw nga xam ne bu fàttalikoo yàlla rek fàttaliku gu day rëy ci yàlla rëy goo xam ne dafay taxaw taxawaayu àdduna bi yëpp moo leen remplacé nee foofu mooy mbir yi moom mooy mbir yi yi biñ ko laajee nag ne ko waliyu ci boppam xam nga bu defee karaama karaama jooju njuuy mën na cee dugg bànneex mën na cee dugg lan moo ko mën a gaar nag maanaam lan moo ko mën a eh, garde ba du am makrul xafi karaama ji ñu mën a teg bët mu ne ko nag loola li koy kii mooy na bañ a sànni balaasu sharia adamu rami misaani shariati min yadihi gaa yi ñoo gën a fonk ñoo gën a fonk ñépp sharia mu ne na fexe ba moom nit yàlla bi bu mu sànni balaasu sharia na ko téye ci loxoom li yazina biha xaalahu fi kulli nafasin waaw bépp ndokki bu muy ndokki mu cay mesurer ay mbiram ci wàllu sharia dégg nga loolu loolu gars yi dañoo àgg foofu nafas booy def nang ci mesurer sa bopp ci wàllu sharia ba xam jàddoo li anna fi lkaraamaati makran xafiyan la yashcuru bihi illa al aarifun aarifuuna billaahi kese ñooy xam jàdd jàdd yooyu di am ci karaama te ku moytuwul karaama dalay dérapé dalay daaneel yàlla dafa wax ne sa nastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun dana leen jay fu ñu ko foogewul maam léeg-léeg sax karaama mën naa ñëw nii te da ak jayee ngi ci biir te doo ko yëg aarifuuna billaahi nag ñooy xam loolu moo tax suñu amee pouvoir bi sax duñ ko def kon gaa yi fan la ñu rawante si ñàkk def du ci def gi de du ci def gi kon loolu benn téere la rek te mooy maanaam al yawaqit wal jawahir fii bayaani aqaidil akabir bu al imaamu yi mënoon naa indi ay téere yu dul jeex ñu nag suñu waxtaan day gudd gudd goo xam ne daanaka dañuy mujj sax ñun ñuy def sax dañuy sonn ndax lu nekk lépp lañuy ñuy bëgg a indi te lépp du fi xaj waaw ah, Ahmed benn baat bu mu wax du dëgg te boo bëggee weddi du dëgg nag la ngay indi ci téere yu ko mën a weddi mooy mooy bari dafay bari lool am téere boo jël rek àndut ak moom téere boo jël rek day day safaanoog lam wax moom moo tax doo mën a indi sax téere yëpp euh, léegi xam nga Ahmed loo def ne miyaar bi ñuy nattee nit yàlla yi mooy karaama faw nga def karaama ñu boole la ci nit yàlla boo ko deful doo kara doo doo doo doo nit yàlla doo nit yàlla maanaam ñëw leen ci téere bi al axlaaq al matbuliya ibrahim al matbuli nit yàlla ci nit yàlla yu mag yi moom dafa ami taalibe yu bare bare Shaaraani nag dafa bind téere ci seeni jikko ñoom tuddee ko al axlaaq al matbuliya maanaam axla sëriñ ba ak taalibe yi yëpp bi mu ñëwee ci waxtaane maanaam jikko seeni jikko daf caa boole te téere bi bokk na ci téere yi mu wax ne moom bind na ne ci la ci la bokk na ci yim sukkandiku boo demee ci maraaji am yi da fi fekk téere bii al axlaaq al matbuliya kon lii nekk ci téere bi moom war na koo gis su fekkee ne maanaam li wax ne ci la sukkandiku loolu wér na ci téere bi boo demee ci page 427 dafa wax ne wamin axlaaqihim bokk na ci koy ñooña jikkoy sëriñ ba ak ay taalibeem mooy karaahatuhum wuquu alxawaariqi ala yadayhim fi hadihi daar maanaam ni ñu sibe karaama ay xarbaax di feeñ ci seeni loxo ci àdduna bi dégg lool kon kay karaama du meeyaar bi ñoom bëgguñu karaama bëgguñoo feeñal karaama maanaam bu karaama dañoo sib lool karaama di feeñ ci seeni loxo loolu ci seen ci seeni jikko la bokk li anna mahalla dhalika innama huwa karaama juwaay di def na ko def yowmal xiyaam mu tasawifa yi loolu lañ daan njëkkante alaaji Maalik ak Sëriñ keneen ak keneen ku nekk day wax ne lu ko yàlla nara won ci àdduna lool na ko dencal ba ëllëg moom moo ki taalimam bu ñuy joxe di séddale di wax waa aljana ñuy dugg seeni kii foofa lu waay xam na ko def foofa àdduna bi du fi ñuy defee sëñ Abbas daf daan wax ne bëccëg kenn du ci taal ampoule maanaam xar baax mi ngi mel ne am torche buñ la jox jox la batterie jox la lépp ngay niit ci naaju tàng wi nga di wane ne nga man nga dara wala am nga karaama ngay niit ci naaju tàng wi léeg foofu kenn du fa nit da ngay bàyyi ba guddi jot te guddi nag mooy allaaxira yaa ngi dégg loolu maanaam mu ne àdduna mi ngi mel ne naaju tàng yow karaama mi ngi mel ne ay ampoule buñ chargé def ci batterie def ci lépp ne la nag yow affaire baa ngi nii soo amee xel doo fa nekk di wane ne man am na ampoule di taal ci ci ci naaj bi dangay bàyyi ba guddi te guddi nag mooy alaxira te guddi mooy alaxira amul benn nit yàlla ci nit yàlla yi ñu xam ñun ci Sénégal sax boo xam ne moom dafay ngéeje woo def karaama ñoom dañoo wax ne lu waaye xam na ko denc ëllëg lañ koy jariñoo Ahmed loo di fontoo nit ñi di wax ne gars yi seen miyaar moom mooy moom moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy tudd mu ne fa man ixtaara wuquu al xawaariq ala yadayhi ci adduna bi faqad ixtaara al arad al faani ala al jawhar al baaqi maanaam képp ku tànn def karaama fii ci adduna bii nii nii ñu nekk nii xamal ne tànn nga luy jeex jënde ko la nga xam ne maanaam wurus la wuy sax dàkk est-ce que ñii moom <laughs> affaire karaama neex na leen neexu leen te seen jikko la wax wa min axlaaqihim sib gi ñu sib loolu te téere bi bokk na ci téere yi muy dellu moom Ahmed Lo lii lan la ci nit di wax xam naa nag ci téere bii may dugal nii ci laa yam ndax téere yi dafay bari léegi daanaka boo toppee wax yi du jeex ci benn waxam jooju mu mu wax moom Ahmed Lo Sha'raani ci boppam bind na beneen téere boo xam ne mu ngi tudd kashful xijaabi warraan an wajhi asilatil jaan ay jinne ñoo ko doon laaj laaj yi ko jinne ji yi ko jinne yi laaj ci wàllu wilaaya ak yu mel noonu moom du ko bind cib téere tuddee ko kashful xijaabi warraan an wajhi asilatil jaan imam Sha'raani du moroomu gaay maanaam ñoom Ahmed Lo ñii nag ñoom lañ gën a yab ay doom bàjjan lañ ko def doomu bàjjen lañ ko def imam Sha'raani ne laajub jur ñeent fukkeel ba ak juróom as suaalul xaamisu wal arbaun jinne yi dañ koo laaj ne ko e, wëli yu ji nga xam ne day def karaama karaama yu bare baree bare ak ji nga xam deful lu bare tuuti la def kan moo ci gën kan moo ci gën a kawe ci yéen maanaam ci seen wëli yu yéen nit ñi mu ne ko ñaari wàll nga laaj da ngaa laaj ci wàllu wëli yu laaj ci wàllu karaama wali yu nag mooy ki nga xam ne tànk centimètre du ko teggi tànk bi ci sunna ci alxuraan ak sunna an yakuna ala alkitaabi wa sunna laa yaxruju anha qayda shibrin moom mooy li jëm ci wàllu waliyu bi amma nag eh, eh, karaama ji moom dafa aju ci jamono ji muy dund aju ci ñi muy waxal cest à foofu la su fekkee ne gëm nañ ko kooku amul karaama gu muy génne su fekkee ne dafa am ñu ko weddi ci loolu ngir bëgg leen a ci lay génnee loo xam ne ci la ñu mën a gëmee kon loolu ahlu asrihi la lay lay kii kullama kasura takdibuhum lahu kullama kasurat karamatuhu kon aktharul awliyaa karamatan mooy man kasura takdibu qawmihi lahu wa aqalluhum karamatan man kasura tasdiqu qawmihi lahu لأن لأن الرسول إنما يبعث لإقامة الحجة على أهل الضلال ولذلك أتباعه يرتبه كان لي جيني معجزة موي سوني كو ويدي موي سوني كو ويدي إيه، لغي نك موتاخ نيت يالا ييغا يرتبي لا يتوقف في إجابة الداعي إلى حضرتي على ظهور كرامة أبدا مادام نيت du ne force dafay génne karaama pour nit ñi gëm ko kon loolu Ahmed Lo ji mu waxoon naan faaw nga def karaama boo deful karaama kenn loo konte ci nit yàlla abadan dañuy woote ci yàlla la ñuy woote nit ñi mën nañoo gëm yàlla gi ci moom te amul benn karaama bu mu xam bu ñu xam ci moom dara lu dul topp sunna lu dul ay karaamat maanaam yi nga xam ne moo gën a nit yàlla yi yooyu mooy mbir yi E, kon Ahmed loolu li wax ti amul téere bu ko weddiwul maanaam moom e, da nga naan téere sangam téere sangam téere sangam ñoo weddi waxam moom waaye moom ay waxam téere tasaw tasawuf yépp koy weddi maanaam téere boo jël rek boo ibbee day weddi téere boo jël boo ibbee day weddi léegi nag li des ci téere yi li nga xam ne maanaam foto e, woon naa ko daanaka dama koy dugal noonu bàyyi ñu ñu tàggoo fii incha allah xëy ne bañ amaat yeneen jotaay. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته